te ne nañ ko nekk na kàddu yu am solo yoo xamante ni mënul woon ñàkk ñu dooree ko suñu waxtaan waaye aussi dinañ taxaw ak yow ci benn point boo xamante ne keroog dafa am kàddu yoo ci yëkkati ñu dem ba boobu gis ci ay tegtal yoo xamante ne dafa mel ni da nga gisoon lii ñëw avant bés bi ñu war a jàppaat bés Balla Gaye ak Boy Niang beneen face fas tey kenn kàddu nga ciy waxaat ci li nga xamante ne moo war a am suba incha allah ci heure bi ak ci ñaari mbër yi war a jàkkaaroo diggante Balla Gaye ak Boy Niang waaw salaamaaleykum waa 4appuis TV maa ngi leen di nuyu di nuyu seen internaute euh, di nuyu ñi nga xamante ne ni moom laay jëflanteel ci wàllu xam-xam ci ñaan ak seet ak produit yi ñuy jaay ñi nga xamante dañoo feebar bëgg faju macha allah di waxaat rek wala ñu kii ci dara tàbbal suñu kàddu ci làmb jooju macha allah. Mm-hmm. Euh, donte gis nañ ni face à bi amaat. wax dëgg yàlla nit ñi daal euh, di gën a conseiller euh, conseiller Boy Niang ak euh, ñi mu àndal. di gën a conseiller it Balla ak ñi mu àndal. ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. làmb ji rek foola doonte donte ñoom si la ñuy mën a tedd. waaye bu weesoo loolu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. nañ ko rafetal ñu bëri ko ci jàmm ak salaam. wax dëgg yàlla ku nekk yàlla mën na la may ndam. kon nag bu ñu jël mbir mi rek. jox kenn ki favori wala yooyu parce que làmb dafa sew wax dëgg yàlla macha allah daal nit ki da ngay foog dara nga foog ni kee mooy daan nangam far yàlla indi keneen jox ko ndam pour conseiller nit ñi rek ak yooyu waaye wax dëgg yàlla Balla moom dinaa ko wax mu moytu dóoru booy ñaa parce que bu ko dóoree ku rek moom mën naa wax dëgg yàlla man naa demee neneen wax dëgg yàlla na moytu kuwu booy ñaa bu baax a baax a baax a baax sinon bu ko dóoree rek wax dëgg yàlla leneen la a waxati daal macha allah waaye na ko moytu na ko gën a moytu ay kuwu yi booy ñaa mm-hmm. parce que yàlla wan nañu ko si ay gént mm-hmm. barke Seydina Mohamed mm-hmm. wallahi man du ma du ma débat ci làmb nag waaye yàlla may nañu xam-xam des fois mu am lu ñuy wat waaye ñun suñuy faj aajo jaam ñi moo ñu gën a farataal ci débat ci làmb conscientiser wu kii ci di ci ko ay nangam ak nangam xam nga mi ngi noonu daal waaye faj doomu aadama mu wér moo xam jàngoro yu baree baree bare wala nit kii mu am ay jafe-jafe ñu génnee ko si wala ñu seetal ko teg ko si programme hmm. génnee la koy saraxam jox koy sangat macha allah mu jariñu àdduna mën a jag nee naa leen képp koo xamante ni comprendrewul boppam bu ñëwee ma Euh, defal ko loo xamante ne dina dina kawe njortam ñi nga xamante ne mënuñoo understand seen bopp comme ni ko Gambie yi di waxee mhm. mënuñu comprendre seen bopp ndax ay jafe-jafe yoo xam ne xamul lu leen topp ak yooyu daal xam naa buñ gënee xuus si waxtaan bi mhm. incha allahu bi dinañu waxtaanee xam-xam mhm. dinañu waxtaanee ngëneel dinañ waxtaanee faj macha allah daal ak sa aaje si kàttanu yàlla. macha allah daal jërëjëf yi am solo la yoo xamante ni saa su ne rek sénégalais dañuy mhm. faral di xaar mhm. euh, yenn ci ay actualité wala xew-xewu réew mi ñu bëri mhm. dañuy toog di xaar nga yëkkati ci li nga xamante ni moo di ay kàddu ndax it kàddu njëriñ ak kàddu njàngale rek saa su ne rek moom ngay yëkkati di ko jëmale ci askan bi ba tax nag tey euh, ñu dalalaat ko rek moom euh, cheikh produit fii ci 4appuis TV fas yéene waxtaan ak moom ci xam-xam waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo di seet sarax ak li nga xamante ni moo see waxtaan ak moom bu baax a baax a baax waaye mbirum kattan la indi lëng ak tëju bopp ci askan wi jamono ji yokk awra bi nga xamante ne nag saa su ne dama naan mbokk yi feneen foo dem produit Cheikh produit rek sànni nga sa xaalis waaye jaaro bi nga xamante ne nag jamono ji euh, képp kuy dox wala ngay ndaw bëgg sa àdduna ubbeeku rek foog nga jàkkaaroog Cheikh produit mu mën la cee teral yeneen i jàngoro yi nga xamante ne nit ñeen koy sooxaadee ci àdduna mel ni ABC euh, diabète ak yeneen ak yeneen Cheikh bi dinañ ñëw ci yooyee jàngoro nga xamante ne suñu borom dimbali la nga koy saafaral euh, kàddu yi may doolee ak yow rek ci li nga xamante ni mooy euh, buntu seet ci li nga xamante ni mooy wàllum ñaan mm-hmm. suñu borom kàttanal la ci ba koo ci jëflanteel rek day mel ni da xam démbam ak barki démbam ak mm-hmm. tey mm-hmm. Serigne Cheikh ci seet waaw El Hadj seet moom yàlla daf ma kaa may macha allah yàlla daf ma may ci wàlluk seet doomu aadama bi wax la turam ak santam tur biñ ko tuddee tur dëggantaan ak santam moo xam nga nekk góor moo xam nga nekk jigéen ak foo mënti nekk ci Sénégal wala ci Gambie wala ci Afrique. Mm-hmm. ak foo mënti nekk. wax dëgg yàlla boo ñu joxee sa tur dëggantaan ak sa sant. Mm. ñu wax la loo xamante ni sëriñ mosula koo wax. man nag mm-hmm. du ma sëriñ ab fajkatu aajo la mm-hmm. yàlla dafa may xam-xam. wallaay la. comprendre nga. yàlla may nañu xam-xam. ci xam-xamu baatin. yàlla may nañu xam-xam ci xam-xamu xel sajara. xam-xam boo xamante ni à base des plantes médicinales la dañ ciy faj. pour ñi am dañoo am feebar ci seen wàllu àdduna seen dundin ak seen nekkin. Mhm. feebar bu jaaxal doomu aadama. Mhm. bu ñëwee ma faj ko ba mu wér. ak foo mënti dem wéroo ak hôpital boo mënti dem wéroo boo ñëwee ma faj la si kàttanu yàlla ak mbaaxam. macha mais wàllum seet. dama mhm. ko mën maîtriser ko macha allah. mu nekk ci man. su ma doon nelaw boo ma yeewee nga ne ma exemple rek nga ne da bëgg a seet boo ma joxee sa tur dëggantaan ak sa sant. amul dama lay fanaanoo amul loolu. Mhm. dama na bu fekkee am naa jot. Mhm. exemple quoi. waaw pour wan la man seet macha allah yàlla daf ma ko may daal. Mhm. su ma doon dawal sax nga woo ma ne dama bëgg nga ma seetal exemple. mën naa sama te xool li may xool jox sa tur yaa adat li may adat. ma nangam ak nangam nangam. comprendre nga. Mhm. loolu yàlla may na ma ko. foo mun a fëggee rek mën naa la seetal. Mhm. waaw donc te it mën nañ jàpp nga wooñu. Mhm. duñ mën a seet si moment boobu parce que dañuy jàpp. mën nga fekk ñuy bindal doomu aadama dara wala ñu fekk ñu dugg ci àll bi wut ay garab. wala nga fekk ñu xam nga rek mi ngi noonu daal parce ñu ngi noonu macha allah daal. parce dañuy jàpp lu bare bari léeg-léeg. waaye lépp yitte doomu aadama yi la ak euh, njariñu doomu aadama rek moo ñu tax a jóg ci kàttan yàlla ak ba xam mais seet luñ la si wax rek mhm. du dañ takk ko téere te ñun la duñ naan la ay liggéey bañ a liggéey sa armée loolu ay tappale ak ay naxaate ay ay loolu nañ ko mhm. bàyyi nit ñi nañ ma dégg ci li may wax mhm. man nag tappalewu ma naxaatewu ma ku mu neex nga téye sa xaalis nga téye sa bopp man woowu ma kenn ci man waaye yor nañu xam-xam macha allah te naxaate ci tappalewuñ wuñ ci nit ñi yenn sëriñ yi dañoo bàyyi naan dañoo liggéey dañ laa liggéey def ko ci ay armel loolu du xam-xam mhm. pour tiital la rekk moo tax a jóg te loolu mhm. nit ñu bari nax nañ leen ci loolu mhm. nañu ko bàyyi loolu du xam-xam nit ki nag bu amul xam-xam hmm. dangay bëgg di wéeru ci côté yooyu ay dañ la liggéey ci armel nangam nangam hmm. te loolu du xam-xam hmm. ñun nag nit ñi nag dañoo bëgg ñooñ la ñuy gëm en général ñu yor ay fétiche yor ay affaire ay ren di bëy ay nangam nangam comprendre nga xam nga rek ñoom loolu lañ gëm moo tax ñu leen di nax ci loolu de bërki de moo njaay rek am na ko xamante ne mi ngi ba nekk ba su ma juumul xaw ma Luxembourg ku xaw ma daal su ma juumul la nekk daal Luxembourg waaw comprendre nga benn féticheur moo ko nax lekk cinq cent et quelques mille am barki Seydina Mohamed duy caaxaan mën naa la génneel ko kàllam wallaahi lazim mm-hmm. ma ne ko yéen a ko def man du ko woo parce que am na solution dama leen daan woo téléphone nit lekk seen xaalis ñu kole ma moom kole ma kalaame ma moom ma jël sama téléphone woo sëriñ booba mm-hmm. parce que dama xam ba xam ne loolu yëg ñàkk fayda la mm-hmm. ko defoon n'importe qui wala des fois am aal bi yëg-yëg bi rek Euh, dañ leen delloo seen i garab wala ñu am fa ay garab yu leen war a jox yooyu hmm. dañ koy mujj obligé ambale leen ko pour mu a dem comprendre nga hmm. mais suñ ma woowee su ma xamee ne sëriñ bii kat dama foog ne kii du tappalekat hmm. parce que du ñëpp parce que am moom tappalekat la xam nañ nga nga nga jëflanteeg yenn doomu aadama xam nga yow ñu jox la xaalis ba pare nga téye ñu lay woote mënatuñ la jot te fekk loolu tappale la yow nit ki avant mu la envoyé xaalis rek yow xam nga dana la jot mu dem ba yónni na xaalis gisatu la loolu tamit nañ ko bàyyi tamit xam nga neexul mm-hmm. gis nga man nit ki bu ñaanloo sept ans seven years yaa ngi ñaan ñaanlu mënoo am njariñ mm. boo ñëwee man gis si njariñ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam macha allah wallaahi te man yoruma ay jinne yoruma ko mm-hmm. te ku ñëw boo yoree jinne sax ma faj la mhm. billaahi ba ñu la jiifee jaafee caméra saka jinne sakata jinne fa la ndigg jinne si la ndigg jinne alamul alamubrus raktik maak ba jat bi mhm. jeex mhm. wallaay laxasim ku yor jinne boo ñëwee rek ma daanu loola fii te ñun yoruñu ay jinne xam-xam rek moo wér te wóor ñun si jat la ñuy yëngu xam-xam yoo xam ay jat lañ koy def ak ay produits yoo xam ne dañ koy composé ay sunguf macha allah ay ubbeeku yépp a ngi fi bayre macha allah ñu ku bëgg ubbi ko am alal yëpp mi ngi fi macha allah buñ la ko liggéeyalee nga ubbi ko am alal ba jaaxal say mbokk macha allah ak ñi la xam daal sant yàlla daal ñun moom xam nañ li ñuy wax mm-hmm. macha allah ñi ngi sant yàlla bu baax duñ wax kenn yàllaa ngi lay nuyu te mm-hmm. gisuñu ko lépp lu ñu la wax rek lu ñu gëm la mm-hmm. lu ma gëm la lu ma yëg la lu ma xam la te teg ko ci xam-xam bañ a tappale bañ a naxaate ñun ay naxaate doxuñu si yooyu yàlla moo ñu may xam-xam ñun làmbatuwuñ li ñuy def làmbatuwuma ko dëgg la wallaahi sama xam-xamu bopp la déw ma si benn sëriñ di Coran pour mu def am client pare mu may def gars yi tamit am na sëriñ ñoo xamante yi am client waaw ñool bëti quoi demaat seen borom mere moroomu sëriñ waaw di leen ñaanloo ca loola ak lu mu mënti doon mm. ñun nag lépp lu ñuy def fii lañ koy defee bu ma amul garab gi ma dem ba ci àll ba wut ko ni a utee mm. incha allah ma boole ka li ma koy boole nangam ak nangam bu sarax yi may génne ma dem sarax a génneewee mm. nangam ak xam-xam bi mi ngi fi mi fi at yi nag bariwut macha allah waaye li yàlla waxoon zalika fadlullah yuti mën sa wala zul fadlullah yàlla moo jël ay jox ko ka neex xoolul xale xoolul góor mag yàlla nag jox nañu xam-xam boo xamante ni macha allah daal Mhm. dañuy faj ñoo xamante ne ay kilifa lañ mhm. dañuy def ay bala nga xam ne ay kilifa lañ mhm. dañuy defal nangam ay kilifa du question lépp la wax waaye bari na lool kilifa yi ñu jëflanteel moo xam ci kaw moo xam ci suuf ah. lépp ci xam-xam nag parce damaa am loo xamante ni ñoom amuñu ko donte it ñoom mën nañ ma ëpp alal it mhm. waaye am naa xam-xam boobu ñoom amuñu ko dañ dañ ko soxla ci man ñeneen noonu ñeneen noonu daal macha allah daal macha allah cheikh bi dafa am point boo xamante ne ma taxaw ci ndax saa ne rek dañuy mhm. faral dégg sëriñ cheikh mhm. di insister ci li nga xamante mooy mbirum sarax euh, cheikh bi pourquoi à chaque fois ngay taxaw ci li nga xamante ne di sarax sarax dafa am solo moo xam nit ki xam ko ak nga ñàkk koo xam léegi nag tappalekat nit ki mën ngaa génne un milliard saraxe ko doo gis benn njariñ hmm. mën ngaa génne juróomi dërëm génne ko gis ay njariñ du jeex yoon daal exemple daal yoon la waaw nit ki nag mën na génne ay milliards exemple ci sarax gis njariñ tamit hmm. waaw exemple la daal hmm. fu waxin pour nit ñi borom xel laay waxal comprendre nga pour wala nit ki sarax mën na réussir bët te du la faj du faj say aajook yooyu mën na tuuti faj sa àdduna ak sa àllaaxira comprendre nga am tàndarma bu ndaw la saraxe mhm. xam nga loolu benn histoire bi ñu koy indee rek mhm. dinañ gën a guddal waxtaan bi pour wan na ngirum sarax mhm. ñun ba jàng jotee jàng nañ macha allah xam-xam dañ koo maîtriser téye ko te bàkkuwuñu ay sëriñ man bàkkoo ma ay sëriñ ak ay sama sëriñ mooy nangam ak nangam di mbubboo ay sëriñ nañ ko bàyyi wala sama maam mooy diw nañ ko bàyyi parce que des fois nit ñi dañuy tàppale bëgg a mbubboo seen maam wala bëgg a mbubboo seen i te seen sëriñ mm-hmm. santu leen loola nañ ko mm-hmm. bàyyi mm-hmm. te faj soxlaay doomu aadama yi te bàyyi tappale yi ak i naxaate yi wallaahi man musuma bloqué doomu aadama doomu aadama musuma jox xaalisam ma lay bañ a wuyooti à vie lépp lu fi nit am boo ma joxee sa xaalis balaa maa am jàmm ma defara la lépp loo fi am ñu envoyé ko mu dem man moom noonu la ma yàlla bindee parce que nit ku nekk am na ñu dëng am na ñu jubadi waaye ñëpp bokkuñu am telling you serious thing I tell you. Mm. wallahi lazim lu dëgg laa lay wax ni mm-hmm. man aw ma tappale yooyu ak yooyu xam nga macha allah daal moo tax maa ngi sant yàlla amuñu garde corps aw ma mm-hmm. garde corps. Mm-hmm. su may génn sama oto man rek maa koy dawal. parce que soxlaaw ma garde corps lu ma koy doyee. tappale wu ma kenn naxaate ma kenn yow nit ki bu amee xam-xam lu muy doyee ay garde corps. lu wér la jarul li yow boo yoree ay kaaraange looy doyee garde corps. li ñu am wérut. wallaay wérut dañuy duul di tappale doon ñu toog ci yi ñeenti garde corps ba juróom billaahi wallaahi wa taala boo amee garde corps loo doy ay ay ay loo amee xam-xam loo doyee garde corps waaw léegi nag mi ngi noonu daal nit ñi nañu yeewu daal macha allah mais nit ñi nag ku leen nax la ñu bëgg ñoom mhm. dañoo yeewut mhm. dañoo yete ba tàyyi mais yeewu wuñu macha allah daal mi ngi noonu mais daal fii daal ku fi am njaaxle ak njàqare boo ñëwee bu fekkee wàllum feebar la ñu faj la ba nga wér pelek moo xam hémorroïde moo xam ndoxu siti moo xam bëñ buy metti moo xam sa bi metti moo xam AVC moo xam tension moo sa tànk yi di bañ moo xam sa tànk yi di metti moo xam sa yaram bi di tàng moo xam sa bëñ bi di metti wala sa awra daal di gàtt nga bëgg koo yokk bu fekkee gàttu sax nga bëgg ko yokk am nañ fi luy yokk awra waaw man maa ko liggéey ay ay jat laa ko liggéeyee ak karité ak ay plante ak biir bi nga xamante ni bu mm-hmm. fekkee sa biir dafa rëy moo xam mm-hmm. góor nga wala jigéen wala nga am doom yow muy jigéen nga am mm-hmm. doom jële fa sa biir daal di rëy jëratul ngay jël ay avion dem si réew naa di fay ay millions yàlla may na ma xam-xam boo xamante ni produit bio laa lay jox naturel ci àll bi laa ko liggéeyee ma jël emballage yi dem ba Dubaay emballage yi ñu ko def sase yi fay ci ay millions yu du jeex pour def ci samay garab exposé ko ci sama boutique. Mm. parce que xam-xam dama gën dama xam-xam moo tax ma jël ay millions def ci samay emballage kese ci ay garabu kàttan ay mm. yokk awra ay hémorroïde mm. ay ndoxu siti ay bëñ buy metti ay cat ay nangam ak nangam nangam ak nangam. ku lekk lekk goo ne dafa bon muy met sa biir moo xam ñu jox la ko lekk bi bon billaahi am na ma la ko joxee rek da nga koy génnee te boo xefee ka la ko jox moom dana jëfaru fa mu toog ci loolu la man yëfi maam laa yoroon yëfi cosaan laa yor yoruma xam-xamu gaa mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ne la man su ma doon génneel fii ay audio yu du jeex si ay sant ak i gërëm kenn mënu la wax nu mu toll allah sant yàlla daal xëy na nag wax waxaat du bari wax waaye mais sant yàlla daal incha allah sant yàlla daal cheikh bi ne saa suñ rek buy ñu bëri nag dañuy gis ni day waxee àll waaye nitu dëgg gi nga xamante ne moom la ko suñu borom mooñaale mm. ak it ñàkk a bañ a gis nit ñi ngi nax wala nit ne teguwul fenn mm. saa su ne rek da koy ñaxtu ak di ko naqarlu pour mm. ñeneen ñi nga xamante ne ñooy woote woo sëriñ mbañ di doxee noonu cheikh bi euh, leneen loo xamante ne nag du ma koy faral di dégg ci ñenn ñuy woote woo sëriñ wala ay ñaankat ci cheikh produit rek laa koy dégg muy wàllum toj liggéey mm-hmm. toj liggéey moom benn bi dama bëgg a leeral. Hmm. ñu bari dañu am ay àndandoo ay rab. Hmm. ñu foog dañ leen liggéey fekk kenn liggéeyu leen. dëgg ñu bari nag. Hmm. parce que xamuñu li leen topp lan la xamuñu li nekk ci ñoom lan la. xam nga. <laughs> allahu akbar billaahi dama man seet barki alquraanu karim te seet bi may seet yàlla may ko kenn si ñii di toog fii si télé bi barki Seydina Muhammad wallaay dëgg la nit ki dama jox turam dëggantaan ak santam ak turu ndayam mi ko jur turam dëgg ak santam amul benn seetkat bu lay boo ko woowee rek sa tur la rek la laaj du la wax sax sa tur dëggantaan wala sa sant man hmm. nag dama naan sa tur dëggantaan ak sa sant ak tur ki la jur turam dëggantaan ak santam hmm. parce que naa man li may seet lan la pour ma man mën xam mbiru nit ki bu dugg si biir xam lanam nangam ak nangam lan la moo tax hmm. may laaj di essayer sur tur ak sant wallahi la azim pour ñu ñëwaat ci wàllu euh, cof ci loolu rek comprendre nga waaye sant yàlla daal. Mhm. ñu jaar ban question nga doon laajaat. Euh, li nga xamante ni mooy wàllum toj liggéey bi. waaw wàllum toj liggéey waaw euh, comme masoon toog si benn télé di seetaan nii. Mhm. ma gis benn jigéen waykat la. ku mën mhm. li muy def macha allah. ñu invité woon ko TFM kàkkatar mu doon way bi muy way di way mu ne it it wax ne. dañ ko sànni kortak dañ koo wax loolu quoi. ma ree ma xool turam dëggantaan fekk moom joxe nañ tur bi ak des dañuy bind seen tur nii. bu waykat yi moom. boobu waykat la nii mën na li muy def parce que naa ko. ku réew mi xam la. xam nañ ko ñenn ñi mais siwul yenn siw na mais du bari am nañu ko xam. bi ma xoolee tur bi adat ko xool xool rawxaani. ma ne kii kenn liggéeyu ko. kii li mu ànd ak moom moo dansé. bari na ñoom ñu mel ni moom. dëgg la moo xam ku siiw ak ku siiwut bari na loolu ñu mel ni moom. moo tax nga xamante comprendre ñu seen àdduna lan la. ak ñi nga xamante ne ni allah seet dama bari na loolu luy gàllankoor doomu aadama bi ñu foog ni liggéey la fekk du liggéey. Mm-hmm. billaahi wallahi wa taalaahi mm-hmm. man seet dama ko maîtriser man ko te yem ma si ku yàlla bind fii ñii di seet man làmbatuma li may def. dama koo mm-hmm. mën macha allah. làmbatuuma ko barki alxuraan. comprendre nga. toj liggéey. buñ la xoolee ba xam ne liggéey la ak lu mënti doon am na lu ma lay jox loo xamante boo ko utilisé boo koy suuru doo ko suuru sax si si néeg hmm? da nga koy suuru cuuraay da nga koy booleeg deru mbaam ko cuuraay bu yéeme la dañ koo jat biñ koy utili biñ koy composé yooyu nanga mag nanga xam-xam la mbaam sëf la hmm. deru mbaam mi loolu nag lu ñuul la hmm. waaye lu baax la cosaan la cosaan la dëgg la ay garab laa ko kii ak yooyu nanga mag nangam xam-xamu tappale daal da nga koy suuru ci duus te boo koy suuru doo takk jaaro mhm. doo takk ndomba doo takk gàllaaj si duus nga koy suuro wala ci kaw étage wala ci ëtt wala ci biti parce que boo ko suuroo la fa nekk foofu yëpp la koy toj mhm. wallaahi loolu nag beneen affaire la mhm. waaye ku comprendre sa bopp understand sa bopp boo ñëwee ma faj la ba nga wér ma décanté la macha allah man dama lay décanté tijji la. Mhm. nga mën a dundoo sa àdduna. macha allah parce que ñu bari ñi ngi dund fekk dafa am lu ñu àndal mënuñoo comprendre seen bopp fekk des fois da ngay bokk nit ndey ak baay. Mhm. sa rakk yow jiitu la. Mhm. wala yow la yàlla def ci yow. sa mag tamit jiitu la. exemple wala nga waaw. comprendre nga affaire yi dafa dafa am dafa am yu ci baree bare nit ki des fois mën na bañ a nekk sa doomi wujjante. fekk yow say rawaxaan moo bon la fa xam la fa nekk la yàlla xam doy na say rawaxaan. mën nga bañ a nekk doomu bi am na ñoo xam ne seen papa mën na am alal amul problème mën na ñoo am nekk seen baay mën na nekk milliardaire mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. fekk la yàlla xam doy na mm-hmm. comprendre nga nit ki mën nga am tamit alal nga am ay rawaan yoo xamante ni nii maanaam mën nga dem ba am alal mu indi waaye affaire yoo xam ne mën na la yàqal lépp meeru Thiès bi gis naa turam ak santam meeru Thiès xaw ma dama fàtte tur bi ma ko kii gis naa invité ko ma turam xool ma ne kii boromi bagaas la. moom meer barki Seydina Mohamed soxlaa ma mu woo ma. Mhm. parce que dama sopp man. dama jël tur doomu aadama léeg-léeg ma seetaan ma xool ma gis tur bi ak ni nii. sa mhm. tur xool ni ma xam say rafaan nam nangam nan lañ manifesté wu. meeru Thiès bi de ah bëgguma sax débat di si bàkkaaroog yooyu. ah ko bar kooku góor na góorgóorlu uti ay mbër ñu ngemb ko. ay mbër ñu xam ay mbiram nag laa wax. ñu ngemb ko ñu li nekk ci ay danger la wax dëgg yàlla yoo xamante waxuma dañ ko def ay dara kenn def ko dara li mu loolu ay rawaanam ñoo mel noonu ay rawaan yu bon la parce bi ma arrêté turam ak santam laa gis mhm. nit ki nag mën ngaa turam ak santam nga xam ne ay rawaan ci nekk mais ba bëggoon xam sara xam lan la taxawee nanga ma nanga il faut nga boole si turam dëggata ak turu yaayam mhm. pour mu ñëw mhm. pour mu gën a am solo mais turam bi mu adopté turam kese rawaanam moom la yàlla xam doy na te bari loolu ñu mel ni moom xam nga macha allah daal moom moom bu <laughs> xam nga ay moom moom ay mbiram moom àndandoo yu bon kese moo si nekk wax dëgg yàlla na dem gën a kii boppam daal macha allah moom meeru Thiès bi nag laa wax. Mhm. mooy ki doon làkk anglais yi la xaw ma suma juum. Mhm. ma la borom anglais neex yi la tudd sax man. dëgg la Cheikh bi fàtte naa tur bi daal waaw. Mhm. macha ni xaadim a da euh, euh, ko ci moom ak bëgg àdduna wala Sénégal. Euh, ku ci ne rek saa soo xëy rek di téye dara wala ngay mos dara. Cheikh xaalis bi. yéene googu nga xamante ne dama naan loolu yéene rek la parce que déggoo benn sëriñ koy def sëriñ si moom dama lay mhm. boo ko defee da am xaalis man Cheikh bi jaaxal na sunguf pour am xaalis hmm. leket gee moom la def leket googu loolu nag leket ma ko jox ku may wor si woo bële ngeen gis bu def ndox waaw moom na def it bi dugg moom la def it comprendre nga hmm. dafa am yoo xamante ne du ma ko jox ay client hmm. sunguf si maa ko tol sama bopp ci àll bi ma jat ko ni ma ko war a jatee ut ko ni ma ko war a utee bind ci li ma ko war a bindee. Mhm. ay xob la yu ma soxla woon. nangam ak nangam nangam ak nangam. Mhm. am ay parfum yu mu war a àndal. lii pour man la altine lañ koy sangoo ak alxames. man xam-xam laa yor yorumay tappale yorumay naxaate. Mhm. sama boutique boo fa demee mi ngi nii ci foire bi. Mhm. gendarmerie foire. waaw côté boobu la boutique bi nekk. Mhm. su ma doon tappalee du ma fa dem di fa ubbi ay boutique ak nangam ak nangam. ay garab laay jaay garab yuy faj lu hôpital mënul faj dama koy faj. Mhm. a faj. macha allah wallahi hôpital lu mënul faj dama koy faj. hémorroïde ndoxu siti ballonnement biir buy metti ah. xamoo lan la. nga faj bay bëgg a dee ak at yu mënti def yow bopp biy metti amoo jàmm. tension diabète ak ak diabète yi nga xamante ni sax dañu dem def ba def góom ñu nar a dagg sa tànk hmm? buñ ñaay dem ba ren sa dootu nga dem hôpital ñu dagg sa tànk buñ ma la joxee deux semaines hmm. nga yi dagg rek lañ xam hmm. te am naa xam-xam boo xamante ni bu la joxee dama jox macha allah nga sant yàlla jur dagg sa ay tànk faj naa si ku dul jeex estomac waxi nopp Mm. gars yi des fois da am jabet am góomu jabet ñu jël ay sunguf di ko tay sa góom bi mm. di ko fa taf nii te loolu kenn du ko taf dañ la il faut nga am loolu ñu jox la ko nga naan ko donte nekku ne lépp la gis résultat si ñenn mm-hmm. man dama la jox ba ko utilisé gis résultat si euh, góomu jabet bi da ngay gis résultat far fos man samay garab lu ma la jox da ngay gis résultat amul sama dem dañoo yokk awra ak lépp mm-hmm. dañ gars yi dañuy toog naan dañuy yokk awra dañuy tappale man damay yokk awra di génn Hmm. boobu kenn toog fi na da yokk awra jamono moo neex nit ñi ku nekk toog na da nga yokk awra ñëpp si mën lañ ko xamee ay crème fesse ak hanche li nga xamante ne mooy développé forme jigéen pour ñu am forme moo indi turu produit ak ween hmm. lépp moo indi produit hmm. man nee naa la produit moo gën a tuuti si lu ma xam boo demee sama Instagram nga def Cheikh produit l'officiel témoignage yi xaajul jeexul ci Instagram Cheikh produit l'officiel te témoignage duy tappale du feebar bu waaye jaaxal même góom yu nekk sa yaram. Hmm. xamuloo lan la. Hmm. ma dindi la ko. lu baree bari. Hmm. même nit ki am euh, taab. taab bi tawoo bën. man faj naa benn mel ba xamante ñoo bokkuñ Touba. billaahi ci ñuy wax taan jobbe bajaan la tudd. damay tudd trop parce que loolu sax du lu garaaw. dëgg la taab la amoon. ñoo bokk benn koñ. taab la amoon ci loxo bi. boobu maa ngi doon dugg àll Touba bi doon ay garab ci àll bi. parce que mm. man maa ko sama bopp man xam-xam dafa ma jaral lu nekk mm. bi ma demee Touba ah, jàll suñu kër ñoo bokk benn koñ mu wax ma problème affaire yooyu loxo bi am nanga mu neeweeg yooyu mu demoon si sëriñ yu bari si jamono yooyu foofu noonu mm-hmm. gisuñu résultat gisu résultat ma ne ko ah, ma waaw ma gis loxo bi loxo bi neew yi bay bëgg dee macha mu metti lool ma jël garab ne ko defee ko nii ak nii boo ko defee boo yeewoo bu soobee yàlla dana bën barki Seydina Mouhamed bu fekkee fen la yàlla man du ma fenal ñoo bokk benn koñ wallaay lan sit mm-hmm. kuy bi nekk be di tudd turu jàmbur tey sama tante sama yaay la ñoo bokk benn koñ Touba mm-hmm. ñun xam-xam dañu koo am xam ko mooy lan mm-hmm. tappale yi gars yi nekk nekkuñu si feebar bu la jaaxal boo ñëwee ma faj la ak ku mën di doon macha allah daal tànk yi métti ba nit ki mënul dox sax bu ñëwee ma faj ko ba muy dox AVC pareil tension pareil the same thing wallaahi. macha mhm. allah daal fii mhm. moom kuy daanu rab bu ñëwee ma faj ko ba mu ni cocc. yoruma ay jinne kuy daanu jinne bu ñëwee ma faj ko ba mu ni cocc. Mhm. waaye xam-xam la yor. xam-xam la ñu yor xam-xam mën na lu ne. wax dëgg yàlla jërëjëf yàlla fii daal pour wàllu ubbeeku bi daal. am nañ ci loo xam ne dañ la koy bindal. ci alxuraan la. boole kaak affaire yu ba macha allah. boole kaak cuuraay santang boole kaak parfum boole kaak nangam nangam. ci ay ubbiku jox la ko yeneen ay sunguf la mais bokkut ak sunguf yi ba tey des fois nag damay jëflante doomu aadama ma am yéene jox la sama yenn sunguf yoo man maa ko ci li sama bopp direct mm-hmm. ma jox la ko donte lu ma jox doomu aadama da ngay gis résultat sa loola waaw waaye am sunguf yoo xam kenn du ko joxe kuy waraate mm-hmm. parce que yii am doole pour alal la lii moom amul sama dem ta ah, ñëw te gars dañoo mën a wor waaye nag man ku ma jëflante man moom du la wor yow nag ba war a yàq en tout cas li ma séq ak yow moom naa la jox say bagage am ma sëkk nga gis ay résultat amul problème macha allah comprendre nga mm. waaye ku bëgg ubbi ko am alal mm. bu ñëwee ma tijji la xaab dama lay adapté xam sa tur dëggantaan seet ba pare mm. xam sa tur dëggantaan ak say sant ba pare ak sa tur yaay ba pare ma xam say sarax say nangam ak nangam ma xam yan bunt ak lan mooy la gàllankoor ba pare su ko defee gàllankoor sa sarax rawxaan da nga koy génnee pour sa rawxaan a décanté wu su a ubbi mm-hmm. ba jox sax lu baax garab gu baax wala loo xamante ne wàllu ubbi wala te dañ ci gis résultat Mm. fekk ñooña seen i raw xan dañoo am ay affaire nangam lii moo leen gàllan ko moo xam cat moo xam rab moo xam nangam moo xam lii moo xam lee moo xam jinne moo xam nangam moo xam nangam fii ak aratoo tur woowu ak sant beeg yooyu mënoo xam la ko gàllankoor te loola ñi ko ci yàlla may fii mm. barki Seydina Mouhamed gisuma ko fii si ñuy génn ci télé yi mm. fépp nag ah. gisuma ko fi loolu ki ma ko jàngal yàlla moo ko may lool ci ay gént la ko ko wan te man maa ngi commencé ay ay gént yu ma yàlla di woon ci ay gént ci affaire yooya ci si <laughs> allahu akbar wallaay du caaxaan la dafa am loo xam ne yàlla moo koy may doomu aadama am am na lu ma yàlla may am na lu mu sa sàkku ji mhm. waaye lépp ngir bëgg a jàppale doomu aadama dama bëgg xam-xam dama ko gëm moo tax yàlla teral ñu macha allah tappale wuñ kenn naxaate wuñ jërëjëf sëñ Xaadim xam naa ne macha allah daal solo loolu waaye dañuy tëjee ak moom rek ci loo xamante ne nag euh, képp kuy sénégalais wala képp koo xamante ne rek bëgg ngaa mucc bëgg aar sa bopp bëgg foo ne rek nekk ca kaw wala ngay ubbeeku mm. Cheikh bi nag foog nga dugg ci li nga xamante ne nag bëgg naa ko yéene ko askan bi muy mm. jaaro bi mm. secret bi ci ne ak la mu àndal ak la mu mën ci nit doy na waar loolu nag loolu moom xam naa moom la ñuy tëjee waxtaan bi Cheikh. waaw gis nga jaaro bi it. Mhm. dama am ñaari façon jaaro yu ma si liggéey. Mhm. ba ñett. mais nit ki su la waxee soxlaam bu ñu la jaaro laa bëgg rek naan ko ban façon jaaro ko commerce kese. pour commerçant yi jaay kat moo ko tax a jóg moo xam ngay jaay suuf. Mhm. moo xam ngay jaay laax. Mhm. moo xam ngay jaay ay yëre. waaw moo xam ngay jaay ay ay ay kër. Mhm. moo xam ngay jaay ay nangam moo xam ngay jaay nangam et cetera wala ay xar. loolu moom buñ la ko bindalee nga takk ko sa loxo jaaro xaalis lay doon. ñu bindal la ko sox ko. génne sarax yi muy kii. nga takk ko. billahi wallahi wa taalaahi loo jaay mu jar loolu far force la na ma yàlla jéggal waaye damaa gëm li may wax hmm? parce que kay far force ab jaam du ko wax hmm. maa ngi koy tuub bu baax nag waaw yàlla sunu borom waaye des fois dama gëm li may wax rek uh-huh. képp kuy jaay koo mënti doon ci àdduna loo jaay day jar hmm. sax dem te ñëw ba mhm. pare bàyyi la ubbeeku boo ko amee at mi ko amee balaa moo dellu nga doon millionnaire wala milliard ça dépend si yow bi nga tollool mhm. barki Seydina Mohamed man xam naa lan la mooy lan la sama produit yi ba ma siy nekk dama ko daan ambulant ay temps du tey ambulance yi naaj muy ruy di yàqu. wallaay dëgg kuy dem ba jël léegi di dem Dubaay di fay ay millions emballage ak yooyu. kon hmm. xam nga sant yàlla. Hmm. comprendre nga. kon mi ngi noonu fay ay millions ay emballage ay hmm. millions di ko yóbbu si réew naa di jaay ay produits. comprendre nga. photo bi ma toog 7 million lay jar. wallaay dëgg la macha allah macha allah macha allah. xam-xam la ñu yor. beneen jaaro bi Cheikh beneen façon beneen jaaro bi it dafa am kaaraange. jaaro boo xamante boo ba beneen affaire la. Hmm. benn nag pour commerce la am na beneen jaaro boo xamante ni maanaam pour ku bëgg liggéey la. mu noo koo am wala ku bëgg papier kayit. Hmm. pour foofu lañ koy liggéey loolu nag xam-xam bu ñuul la ci wàllu jaaro woowa. xam-xam bu ñuul la liggéeyoo ma ko alxuraan mais jaaro commerce bi alxuraan lañ koy liggéey ak ay sarax nangam ak nangam. Hmm. beneen jaaro bi nag pour ku bëgg këyit la. wala ngay lijjanti dara mu dëgër ci yow lool. loola pour loola la mm-hmm. ngay lijjanti dara mu dëgër ci yow lool mm-hmm. loolu nag des fois dañ lay xool yow sa rawaan nan la nanga ma nanga génne say sarax ba pare mm-hmm. génne saraxu jaara bi aussi waaw loolu moom pour kuy lijjanti kayit loolu am na si preuve xaajul jeexul ñun ñi ngi sant yàlla bu ñu gëntoon nit ñi dinañ ñëw waaye dañoo bëgg a gën a jariñ doomu aadama yi parce nit ku nekk day lay day nekk fenn xamul ku baax wallaay que internet bi ñu bari quatre-vingt-dix-neuf pour cent bi ñoo fi nekk mais nag yàlla dina teg tappalekat ci internet. Mhm. indi ku baax it. muy man muy sama morom muy keneen muy keneen am na ñu baax ñu bari ñu gën si internet bi. Mhm. nit ñi leen xamul rek. wala benn benn ma leen xam rek. Mhm. maa sha Allah ay tappalekat tappalekat yi ñoo ëpp laam. ñoo ëpp ñoo ëpp ñoo ëpp laam ñoo wax ay conneries di def ay théâtre waaw comprendre nga ah, jamono de comédie gi bëri na si ñoom waaw comédie la quoi affaire bi du comédie nañu yor xam-xam. nañu dem jàng ji. xam nga. nañu dem jàngi ji. knowledge mhm. is everything. xam-xam mooy lépp. Mhm. wallahi lazim allahu alam. Mhm. yàlla rek nag moo xam. moo xam ki mën. waaye ñun ab jaab lañ. doonte it mën nañ mënuñu wax ne yow kat da nga may seetaan fat fos da nga ñëw si man ma ñaanal fat fos mënta nekk. waaye nit ñi ay xel rek la ñu yor. mi ngi noonu daal. fii amaanillah. Euh, ñi ngi nuyu ñu doon seetaan ñëpp. macha allah. di leen wax rek feer bu waay am. bu ñëwee ma faj ko dëgg la ñi nga xamante ni seen awra du jóg hmm. wala balaa moo jóg day yàgg hmm. wala ñuy gaaw a daanu hmm. am naa lu koy faj ba mu wér du ma la jox naa ay da ngay utiliser 30 minutes doog a sëy loolu ku koy def baaxut day metti bopp day tax sa bët yi di xong di metti bopp sa xol bi lay yàq garab yooyu ñu si baree bari nag laa wax ay 30 minutes nga utiliser wala da nga ay 4 temps loolu baaxut ay doom ay garabu tubaab lañu jël ay ay la ñuy jël dëbb ko boole ak ay sunguf yu si bari bari baaxul man li may jox dama dalay faj ba nga wér pelek pelek sa awra bu dul jóg sax daf koy da nga ko sa awra di jóg bu baax a baax a a baax mhm, mhm, mhm. xam-xam te boo ko utiliser benn fan ñaari fan même boo daawul koddal boo yeewoo même boo yëw boo ko utiliser nii ni nga ko mëqee ci bu mëq naa ndox nii da yëg sa bopp xam nga doog a gis résultat yi waaye nekkul dama ko ko ci 30 minutes avant demi minutes noonu loolu ay 30 minutes before loolu ku la ko jox rek joxu la garab bu baax joxu la lu baax. dafa jël ay garabu tubaab boole kaa garab yoo la tëbb ko te loolu baaxut. Mm-hmm. is fake. Mm-hmm. fake la. du mm-hmm. dëgg c'est faux. xam nga ñun mi ngi noonu daal. macha allah bi ngi naan soxlaay doomu aadama yi ñoo ñu fi ku dem bay dem ay réewu naar yi di faj ay naar. xam mm-hmm. ñu lay teral mm-hmm. nga fay xaalis bu weex tàll loolu leer nañu mm-hmm. macha allah yàlla daal wax baaxul daal waaye if you know xam naa ne waxtaan bi am na solo loolu ba tey rek ci fàttali ñi ngi daral cheikh euh, produit bi pour yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi euh, cheikh bi mbégte ak kontaan tey ñu jàkkaarloo ak yow fii ci 4appuis TV ñu bàyyi rek nga joxe dernier kàddu yi waaw dernier kàddu yi mooy euh, gars yi nañ yeewu rek. Mm-hmm. affaire yi nekkul ni da nga yor ay morceau yu xong da nga yor nangam rek mooy ba baax baax. Mm-hmm. demewul noonu nañu mm-hmm. yeewu daal. waaye en tout cas même ñu jubawut ak seen soxna wàllum nopp dañ ciy yëngu. dëgg la ñu jubawut ak seen soxna am na ñoo xamante ni jubawuñ seen soxna nangam ak nangam. fekk seen diggante ñoo àndut. bañ koy seetlu feneen dañ naan la kat loola baax na fekk baaxut fekk gars yi ñu bari seet yi ñuy seet. téere yi ñuy seetee hmm. sa marché ba lañ ko jëndee wala ñu bëgg te téere yooyu xam-xam yi fa nekk wérut bëgg a lekk li ñuy li nga yor rek ñu ne la baax na kese moo fi bëri kese hmm. man bu sëy bi baaxut dama naan la baaxut léegi rek laa si mujjee benn ab yow fi la la fekk hmm. ki ma woo boobu ba ngay ñëw maa ngi wuy téléphone di la nuyu maa ngi wuy téléphone dëgg la te mu ko mujj sax coupé kii bi pour man a am jàmm pour mën a commencer émission bi dama koo seeta wax loo xamante ni sëriñ ma su koo wax mhm. barki Seydina Muhammad ma nga nekk bay UK Angleterre Gambien bu nekk foofu la mhm. tey la may doog woo tey la may doog xam mhm. xam-xam moo wóor. xam nga hmm. boo tuddal ko problème bi am ak jabaram nangam ak nangam lii ak lii lii ak lii nangam ak nangam. Hmm. dafa waaro moo tax mu woo ma appel su ma coupé fii ba deux temps na ma woo tout awas mën na ma woo. Ah. mën hmm. la ñun moom duñ la ne ma ne nga fay ma xaalis bu weex tàll ma jaay samay garab ma defal la ay ñaan nga gis njariñ nga yor ay rab mu ñëw ma faj la mm-hmm. ngay daal rab nga ma faj la mm-hmm. nga def nang ma ñëw ma faj la kese moo fi nekk mm-hmm. waaw mi ngi noonu daal jërëjëf affaire yi nag nekku ci ay yére ay nangam su ma neexee léegi génn dóor sama costume dëgg la teewul xam-xam bi fii la nekk wallaay xam-xam su ma neexee génn dóor sama maayo Sénégal teewul xam-xam bi fii la nekk su ma génnee dóor sama body teewul xam-xam bi fii la nekk yére du dara macha allah abiyaas la quoi mais eh, dafa rafet suñu xam cosaan la. cëral sa bopp habillement lu rafet la. Mhm. solo lu rafet xeeñ lu neex. Mhm. toog fu neex. kilim mhm. di la ëpp. lekk lu neex. am soxna su baax. affaire bi noonu la boo ko defee rek. macha allah tey di wax dëgg bañ a tappale bañ a naxaate. jërëjëf das it daal. macha allah macha allah xam naa ni kàddu yi am na solo loolu mbokk yi ci jàkkaarloo ak moom fii di euh, di kontaan bu baax a baax a baax rek ci jàkkaarloo ak yéen di leen jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.